لأن رمضان يجمعنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mbokki jullit yi xarit yeeg soppe yi rawatina yéen ñi bàyyi xel Al Imran TV ginnaaw bi nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel chaîne bi di Al di nuyu di siyaare kilifa diine yëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak sutura di nuyu kilifa aada yëpp di leen ñaanal jàmm ak tawféex ak sutura di nuyu mbokk yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew bàyyiwuñu kenn di siyaare baax a baax nag sunu mbokk yi ñuy topp ci internet bi ci Ali Imran TV l'officiel ca Facebook ba ak ci YouTube bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci abonné bi nga xam ne yéen a ngi koy abonné ci chaîne bi mbokk yi xam ngeen ne nga ñuy topp boobu ba léegi ñu ngi woon ci sarax ak tuyaaba yi ci nekk mbokk yi mu mel ne sunu bind bu mujj ñi ngi woon ci digli aw yiw ak tere day taxaw taxawaayu sarax mbokk yi ak lépp loo xam ne dafay fekk doomu aadama ci deram mbokk yi dafay taxaw taxawaayu sarax mbokk yi dafa bokk ci taxawaayu sarax toog jublu xibla loolu day taxaw taxawaayu sarax mbokk yi naka noonu tinu mbindeef gis mbindeef moo xam ne tey jii dafa am ay bor ban di ko bëgg a yóbbu kaso ba convocation bi ñëw mbokk yi nga yëkkati alal dem fayal ko bor boobu teekoo tëdd kaso loolee nga ko def mbokk yi dana taxaw taxawaay sarax mbokk yi waaye bokk na ca it fekk ñaar ñuy jàppante nga toll fële rek gis kurpañ yi dal nga fexe ba téye leen ba atte leen loolu mbokk yi day taxaw taxawaay sarax ki kurpañ bi jëmoon ci moom bu xolam seddee ci yow rek sa aajo faju mbokk yi loolu lu a bàyyi xel la gis ñaar ñuy xeex jàppante bi bari lool nga fexe dugg seen diggante ba tàkkale leen loolu day taxaw taxawaay sarax mbokk yi lu mat a bàyyi xel la mu ne fekk lor ciw yoon fekk xottu biteel buñ toj ciw yoon nga génne ko yoon wa day taxaw taxawaayu sarax ndax léeg-léeg mbokk yi nga gis yoon woo xam ne dan fay teg ay xotti biteel ak i pont ak yëpp nga gis koo xam ne yàlla dafa muur ay bëtam du gis ndeysaan li ci suuf mu ñëw jaar ca loolu daggub tànkam mbokk yi lor lor lor bu doy waar a ngi noonu kon yow mii dindi loolu ba loolu du day taxaw taxawaayu sarax léeg-léeg nga gis koo xam ne canal bi ci mbedd mi lay kanaal bi ci buntu këram lay ubbi wala mu ubbi canal bi ci këram bàyyi ndox muy ñëw ci mbedd mbokk yi léeg-léeg da jaar ci koñ boo xam ne kanaal la nit ki ubbi mu indone mbedd mi yépp nit jaar fa sol lu rafet ndox ma taasal ko mbokk yi yooyu yëpp mi ngi am ci sunu dundin te àq yooyu baaxul mbokk yi ab jullit fu mu toll dafa war a ragal àq mbokk yi ab jullit fu mu tollu lépp luy lor moroomu jullitam du ko def jullit du lor moroomu jullitam mbokk yi bokk na ci loraange jooju ba léegi nga gis koo xam ne dafa saaf ay ganaaram ñi sant Fall ñoom soxna Fall Rasoul ca Espagne na ma jégal xam naa mi may sànni xeer mais na ma jégal baax ñi sant Fall ndeysaan nga saaf say ganaar ba pare teg ko xet ga di xeeñ ab paaleen te mayoo ko ci mbokk yi lu doy waar a ngi noonu xet gi gi koy xeeñe dafa taxoon di diina sant la ci bu dee ñeexa na nga yekku ñeex ma pour mën ko cee may waaye bu ci yaakaar mukk Pape Doudou mi ngi ree xam naa ne moom du jomb du ñàkk daa am lu koy xeeñ lool moo tax bu ko defee loolu lu mat a bàyyi xel la waaye bokk na ci it fekk silmaxa suy dox nga jàpp ci aw yatam wala ci ab loxoom muy jéggi tali bi nga jéggil ko tali bi loolu day taxaw taxawaay sarax mbokk yi fekk silmaxa boo xam ne mu ngi traverse yoon wi nga jàpp ci loxoom jéggil ko loolu day taxaw taxawaay sarax mbokk yi ak lépp loo lekk sa alal mbokk yi sa alal ji nga xam ne yaa ko liggéey ba mu lew la lépp loo ci lekk day taxaw taxawaayu sarax doomu aadama du nay ba nay ci boppam nit du nay ba nay ci boppam ndeysaan génn góor goo xam ne dafa nayoon ba nay ci boppam ba bi feebaree dane buñ ko naree faj ci alalam nañ ko bàyyi ci kër gi mu tëdd waaye alal doom yi rek lañ koy faje alal ji mu yor moom nay na cee faju sax kon yàlla ñu yàlla musal ci nay ndax mbokk yi nay dafa jege sawara sori aljana tabe dafa jege ajjana sori sawara ku nay nag da ngaa jege sawara sori aljana mbokk yi bokk na ci it di bégal ku gëm di bégal ku gëm mbokk yi jullit dëgg-dëgg bu nekkee ci mbokki jullitam na leen bëggal ci loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ko daganal bokkut ak li am léegi ci eskat yi nga xam ne dañ koy def mbégte moomu chariatul islamiya du ko questionné mukk ndax la ngay bégal jullit bi sabote diine da cee nekk la ngay bégal jullit bi wax lu dul dëgg da cee nekk loolu moo tax mbégte moomu l'islam du ko questionné mukk mbokk kon léeg-léeg nga dégg benn comédien bu nekk ci pénc mi ne man kat jëf ji may def dafa am solo ndax maa ngi fexe ku nekk hôpital di ko reeloo reetaan loo ba na ko teg ci dëgg waaye wax lu dul dëgg nag bu ci amee sareetul islam yi génn na ci loola mbokk yi su boobaa yow mii reet yow mi nga xam ne da ngaa opté nekk comédien na tànn li ngay wax ak li ngay def mbokk yi bul saboté diine ndax léeg-léeg da gis ci ñiy reetaanloo koo xam ne dafay julli ba ci biir mu dagg ko mbokk yi ku def lu ngi noonu kon war a dal ci kawam a ngi noonu mbokk yi kooka képp kum reeloo sax sab xool dafa feebar kooka képp kum reeloo sab xol dafa feebar ki nga xam ne mbokk yi mi ngi jalgati lislaam di la reetaan loo vérifié waatal sa ngëm ba xam dëgër na am déet na nga vérifié waat sa ngëm ndax am dëgër na ndax ab jullit bu fekkee ngëmam dëgër na du békki lu naqar yàlla jullit bu ngëmam dëgër du békki lu naqar yàlla la koy bégloo mooy lu neex yàlla mbokk yi su boobaa loolu lu mat a bàyyi la waaye bokk na ca it di ndokkeel doomu aadama Pape Doudou doon def benn concours ñëw admet nga ndokkeel ko loolu bokk na ci tuyaaba yi nga xam ne bu ko suñ borom dee fay ab jullit kenn xamul nu mu toll waaye bokk na ci it mbokk yi tegtal doomu aadama aw yiw gis ne fekkat ña ngi fay tafsir alquranul karim nga fexe faa ko ànd ak moom mu di ko mu di ko déglu walla it mbokk yi nga gis ne fii ñaa fay diglalu aw yiw di fa tereb safaan nga fexe koo tegtal mbokk yi fexee tegtal sa mbokk ne ko demal abonné Ali Imran ndax boo ko abonné la nga fay gis lépp luy jàngale diine la nga tegtal sa mbokk ne ko demal nga dig digal sa mbokk ne ko demal nga abonné Ali Imran te boo paree nga bës kolos bi ba lépp lu fu wàcc yiw rek nga mën ci am mbokk yi kon ndeke aw yiw lu bari la loo xam ne bu ci ab jullit tënkoo dana nekk lu am solo kon yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp ñi ngi sant bu baax di gërëm mbokk yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel Ali Imran TV ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di sant bu baax di gërëm di leen jox dig dajee ba beneen yoon incha allah lépp lu ci jub rek ndimbal suñu borom la lu ci dëng matti doomu adama yi la wasalaam matti doomu aadama bii doon wax la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.